massawu déjà njabootam moom waaye it di ko massawu sportif yi <coughs> sportifu Sénégal sportifu monde bi yëpp ndax euh, Lamine Diack àddina bi yëpp ñoo ko mujjoon a bokk Charles Faye gannaaw jàkkaarloo group Futurs Médias euh, <coughs> Sénégal yëpp buñ ko euh, massawoo njabootam jaale ko yow mi papa woon ci yow jege woon nga ko trop dañuy jël njaal mi tamit teg ko sa loxo defe naa nga nga nga tënk kàddu yow ak papis xëy na ak keneen ku ci bëgg wax dara ñu doog a dem ci waxtaanu transport bi. waaw jërëjëf c'est vrai que suñu papa la woon suma papa woon suñu papa woon ñun mhm. ñëpp nga xamante ni ñu doon ay ndaw ñu ma gën a màgg si parce que Lamine Diack euh, loo xamante ne def na ko fii si wàllu sport daf ko fii si wàllu politique daf ko fii si wàllu dëgg. Euh, dëkkukaay daf ko xii si wàllu xaritoo ak nit mm. defe naa c'est ñëpp xam nañ loolu euh, don benn militant du sport doon benn soldat du sport doon benn général di sport yóbbu suñu sport suñu tàggat yaram yóbbu ko fu gën a sori dans le monde tey athlétisme bu ñuy wax athlétisme amateur daa tëb moo tax mu tëb parce que bu njëkk ba athlétisme amateur la woon moo ko professionnalisé créé fi diamond créé fi championnat du monde d'athlétisme créé fi lu bëri bëri loo xamante ne sax ay prime ak yu demee noonu on lui doit beaucoup bu ñu fàtte que suñu médaille d'or 1988 bu Jaba il était derrière suñu première champion euh, euh, titre de champion du monde 400 mètres avec euh, Ndey kii lu mu tudd Ami Thiam mais bu ñu fàtte que celui qui est président boobu de de de la de de la fédération internationale c'était à Edmonton 2001 liggéey na fii liggéey boo xamante ne moom defe naa dina jafe trop pour mu am koo xamante ne dina dox ci kaw taxam di ko ñaanal yàlla ah autour parce que ñun am na loo xamante ne liggéey nañ mu ak moom sax si wàllu làmb c'était en 2015 euh, tëgg mu nekk fii tuddal ko drapeau boobu Youssou Ndour moo ñu ne woon da ngeen ma demal si sam papa bu baax ma ba ñu ñëwee gis seeti ko waxtaan ak moom ne ñu moo fis lu ma laaj dinaa ko def bu tëgg fi benn lamb boo xamante ne qui a fait date Eumeu Sène Balla Gaye c'était le 5 avril 2015 vraiment di ko jaale di jaale sa famille di ko jaale Sénégal yëpp parce que Sénégal moo ñàkk kàngamu un plus grands fils du sport en tout cas bu mu produire xam naa Papis il avait des relations étroites aussi avec le président loolu xam naa loolu parce que Papis c'est près de trente vingt cinq ans vingt ans de sport maintenant. tu li nga wax moom bu ñu si yokk dara xam nga uh, bu ñu commencé di uh, démarrer.